sama sedd na si guyu ndey sukkay mii damaa gis may dem di wuti te yàlla rek tax mu ñëw ni ma ñëwal ma jox la loo loo yóbbu ca kër ga nday moo xam li mu bëgg nag yàlla na leen ko yàlla defal Macky Sall li muy wut ci nguur gi yàlla na ko kat suñu borom bi yombalal ak yéen ñëpp ñu fi taxaw ñu teewee ko ay déwén yu bare yu ànd ak wér ak wérle yàlla yokk xéewal yokk ma nii ci barke Seydina Muhammad waaw kontaan naa ci torop ren ji xam naa ni moom duma am benn problème mu jafe-jafe ci affaire dund lii rek laa doon wër ci mbedd mi waaw bëgg naa nag waaw ci ci korité bi bëgg naa nag lii moom ngeen di ci góor góorgóorlu bu baax ñu sunu moo sa nu moroomu handicapé yi ci mbedd mi lii rek moo leen di tax di sonn man nag sama xol bi sedd na ci ci korité gi yàlla na ngeen ko joxe ay déwén te yàlla ful ko def ko ay xéewal yu bare ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndey su koy mii nag mënuma kaa fay dama ko bàyyeeg yàlla naka Macky Sall dégg loolu naan la ko yàlla ak yonent bi fay te jàppale leen bu baax a baax a baax ba mu am beneen mandat ci barke yaa rasulullaay barke koor gi ñu nekk waaw sama xol bi sedd na guy waay. may tudd Ndeye Soukeye Gueye di militante bu APR bu président de la République donc suñu xew xew tey bi mu fas yéene doon une première édition les femmes association lañu teg àndu nag nawle la. samay camarades responsables laa bokkal lii si biir xëy na yàlla dafa dogal ma nekk si kanam don la coordonnatrice parce que dama jël initiative waaye woote ñu wuyu la jafe na rawatina ngay woo say morom euh, say ay responsables y a de grandes dames de femmes très braves yu nekk APR yu nekk si biir. tey fi ay militante daje wu ñu fi ay coordonnatrice de comité ñoo fi daje donc balaa may wax dara bi ak maa ngi remercier samay camarades yi nekk si biir les responsables donc association bi ñu teg mu am benn dañu woote. si benn euh, dynamique unitaire teg benn chaîne de solidarité parce que umtu kenn ne politique dafay jeex mais suñu ànd ñu fas yéene ànd nga xam ne day doon au la de nos ambitions de nos ambitions politiques day nekk loo ma ne fa war a doon de nos ambitions personnelles parce que comme ni ma ko waxee politique dafay jeex Senghor jaaroon na fi Abdou Diouf jaaroon na fi Abdoulaye Wade jaaroon na fi président moo fi jaar ñun nag en tant que jigéen ñuy doomu Thiès comme ni ñu koy waxee la femme est la mamelle nourricière de l'humanité tey jii unité bii am si suñu mbokk ñu jigéen ñi toutes les sensibilités qu'on veut du sein là waa kër Thierno Alassane Sall ñu ngi fi waa kër Pape Sida Dia ñu ngi fi waa kër docteur Ndiaye ñu ngi fi waa kër euh, Abdou Mbow ñu ngi fi donc bu ma limee sax dinaa juum mais ñëpp ñu ngi fi waa kër waaw wax dëgg yàlla ñu bëgg nag dynamique unitaire bii ñu jël ñu ñuy jigéen bu société baaxee dañ naan jigéen la waaye bu bonee it ñun dañ si am part de responsabilité ñuy ñaax tous les camarades tous les toutes ces braves na ñu doon socle boo xamante ñu doon croix de transmission entre nos leaders boole la ñu ànd doon benn bi waaw li ñu fi jotee joxe joxe nag ah ay jigéen la ñu néew suñu doole lii na initiative la idée la boo xamante ne bi ñu ko déparé femme yëpp épousé ko ñu defal ay lettres ay lettres d'appui ay lettre d'appui mu ni mu am responsable yu yóbbu joxoon nañ na une presque une quarantaine de lettres yu ñu génne woon mais il y a eu que donc ñuy ñuy lancer message à ceux qui n'ont pas eu le temps de réagir pour des raisons diverses di leen wax ne leen jigéen ku ko sagal yàlla sagal la jigéen ku ko teral yàlla teral la di gërëm nag en premier lieu le PCA du FONGIP monsieur Pape Amadou Ndiaye docteur Pape Amadou Ndiaye vraiment lépp luy jàppale jàppale si ñuy gërëm comme le directeur général de la poste Pape Siré Dia mu jox ñu subvention bu takku bu dëgër boo xamante ne wax dëgg yàlla kontaan nañ si ñu koy gërëm Pape Siré Dia ñu waaw léegi moom bu ma tuddool ñaari nit quand même ñuy arrêté parce que tamit bu ma dugal ñuy gërëm la docteur Cheikh Kanté directeur général du port autonome de Dakar di gërëm suñu camarade la grande dame Adja Ndeye Tické Ndiaye di secrétaire général à la pêche moom it jàpp na si Babacar Pascal Ndione di receveur des impôts et domaines jàpp na si euh, Cheikh euh, Ablaye Fall jàpp na si CC du ministre de la jeunesse Mor Niang jàpp na si euh, Lamine ay Fall également jàpp na si Euh, Abdou Mbow l'honorable député vice-président à euh, l'Assemblée nationale jàpp na si aussi donc Ndeye Awa mbay mi ngi si biir tool c'est la présidente c'est la directrice de la société Régis Sénégal di vice-présidente MEDES waaw waaw parce que tamit yàlla bu la mayee tey jii ay jigéen lañu xëy na suñu amee yéen initiative bi matul 15 jours ba ma lancé offensive bi deful 15 jours démb a def 15 jours femmes yëpp ñu ñëw adhéré ñoo jàppale ma docteur Ndiaye abal ñu oto ñuy daw yoonu Dakar di dugal xëy na nag lenn nag offensive bi buñ ko lancé au semi yàlla def na li ñu war am am nañ ko si on a eu à récolter que 2 millions de francs et 75 paquets de sucre 2 millions de francs et 75 paquets de sucre yaakaar nañu nag bu nee dina gën a yaatu kii nag yàlla moo ko wax si alxuraan wa boo boo amee suba boo amee loo añee tey bu xalaat sa dépense suba war ngaa jàpp li nekk seen gannaaw ñun nag ay jigéen lañu mais suñu générosité de cœur la ñu am. suñu générosité de cœur la ñu am esprit partage parce que faut ñu comprendre li ñu teg solidarité la entre aide et partage yaay ji toog fii tey jii sama yaay la may fàttali ma nga sa àlaxira tey ba ma ko gisee mu toog si chariot bii dama mosoon am rakk bu handicapé woon mel ni sa mu def moo ma tikkee dafa am lu ma fàttali moo woo ko der doite taxi bi maa ko yaay boo defee laa jëm boo fa mënee jaabooru 10 heures 11 heures di tey jii xëy na yàllaa ko teg lii déggal ma ko waxee mu ne wàcceel nañ ko koritem wàcceel nañ ko koritam parce que dina toog xëy na suba ba ngoon di dajale tey balaa ñuy séddu ñu ko moom dañuy séddu ñi bu ma fàttewu ma tamit association bi yemul association yi parti bi dafa am lu ko sanc woote boo gis am na ñu njëkk a wuyu si dafa am ay pionniers yu fi nekkoon parmi ces pionniers am na ñu nekk si biir elles font partie des pionnières mais mu am suñuy càmmiñ suñuy góor ku gis Ndiaga Wade mi taxaw ma Mamadou Mbaye ngi si biir ma mbay Mbaye bëgguma lim tey non may ma dama ne non may ma suñu partage bii foo ñu boole si suñuy jabaru càmmiñ góor ñi bokkuñu si waaye suñuy jabaru càmmiñ foo ñu ñuy ñaan yàlla ñu ngi ko séddale ay déwén yu bëree bëri di wax aussi kilifa yi nekk Thiès fii Macky Sall jox la ndombal tànk nga ne doo gëstu jigéen ñi doo yërëm jigéen ñi du ma ma leen lim waaye ils se reconnaîtront xam nañu li may wax. cette première édition de C'est le moment de dire merci à toutes ces braves et grandes dames de l'APR, responsables comme moi, qui se mobilisent tous les mois pour la réussite de nos tontines. Si être dirigeant procède d'un choix électif ou nominatif, être responsable consiste à se poser comme modèle auquel on se réfère pour agir. Aussi, nous, femmes, devons unir nos cœurs et nos âmes tendu vers le même but, donner un second mandat à notre président Macky Sall. Et l'œuvre déjà entamée. Permettez-moi de remercier tous ceux qui ont honoré de leur présence cette journée. Mes chers invités, nos camarades de Benno Bokk Yakaar, fidèles alliés de notre leader Macky les honorables membres de l'APR et tous les généreux donateurs qui nous ont soutenus financièrement pour la réalisation de cette première édition. Leur générosité magnanime va au-delà de la simple solidarité. Elle traduit un humanisme, conscient que la femme est la mamelle nourricière de l'humanité et que la pauvreté se féminise de jour en jour. Il s'agit du docteur Papa Amadou Ndiaye. le docteur Pape Siré Dia directeur général de madame Ndeye Tické Ndiaye secrétaire général du docteur Cheikh Kanté ah, directeur général du de l'honorable député Abdou Mbow de Babacar Pascal Ndione receveur des impôts receveur des impôts receveur des impôts et domaines de M. Ousmane Sissé, directeur général des mines et de la géologie, M. Abdoulaye Fall, chef de cabinet du ministre de la Jeunesse, M. Mamadou Tchao, secrétaire général PNDL, maire de Tafette, le docteur Lamine Aïcha technique au ministère de la Jeunesse, de M. Mornian, opérateur économique, Mme Ndaye Awambaye, directrice générale Euh, Directrice générale, Régus Sénégal, vice-présidente, Mérès. Nous, nous ne terminerons pas sans lancer un appel pressant à tous ceux qui, pour des raisons diverses, n'ont pas répondu à notre sollicitation. Encore une fois, je vous remercie et souhaite à tous une bonne fête de Corité et un repas copié pour les Yaël et les Séquelles. Que le nous guide sur un chemin radieux et faire ses déwénati jërëjëf